arbitre baa ngi noonu di siffler grand combat bi dox ci diggante Petit Kona ak Fadam Junior écurie Fadam Petit Kona kaay baax la nekk Fadam Junior moo woon ginnaaw Petit Kona moom ngeen jàkkaar lool waa Ama Events ay ca mbokk yi mercredi 23 Ama Events Petit Kona Fadam Junior Fadam Junior moo woon ginnaaw ngembo ngemb lu weex li Petit Kona moom nga jàkkaar lool ndeysaan ñaari xale yaa ngi lewaatoo ñaari xale yaa ngi lewaatoo li am ci làmb ji de tey laa koy doog gis ñaari mbëri di bëre ñuy teg di tambale ci suuf ana cosaanu mbay ana cosaanu làmb cokkaas na cokkaas na ah waay dinañ xeex Petit Kada Petit Fadam ak Kona ndeysaan Petit Kona Petit Kona cokkaasan na Fadam mbaa la door nga daanu mbaa la door daa bëggoon jàppante jàppante na Fadam jàppante na na mu door Petit Kona ngi door ci suuf Fadam mbaa njëtt bi la njëtt dina la arrangé may tull ndeysaan Kona dooral fi nga doon door baax na. bul songale ah waay kana ah, waaw del dóor Petit Fadam dugalal sa bopp ndeysaan ko ba pare jéem xool noo defee kele kana ah, yow del dóor rek bul bàyyi dóor kana ah, del dóor ñu ngi dóor kana mu ngi dóor Petit Fadam ndeysaan ardo wala déet ah gis naa fi ku génn ñoom xonq de kàlla wala arbi bi gisagu ko arbitre yi daal maa leen gën a baaxi bët arbitre yi maa leen gën a baaxi bët am na mbër bu toj te arbitre bi gisu ko tey lii ma ngay fayu Petit Kona ak Fadam arbitre bi daal bët yi baaxul lu ma la wax arbitre bi daa am Adama ba may gis muy naaj ci arbitre bi gisu ko mbokk Basirou Diouf la <laughs> arbitre ak Bas ñoo bokk benn bàyyi. non arbitre bi du dara <laughs> ndeysaan xarit la ak ñoo baax ndeysaan arbitre yi ndeysaan mbër dem na ardo Fadam dem na ardo ndeysaan Fadam dem na ardo Fadam dem na ardo ñëwaat arbitre bi suuf la waat na Fadam Petit Kona Fadam Petit Kona mu ngi dox ci koom lan la ñuy defaat Poulicouna daa bëgg a cokkaas cokkaas ànd na jàpp na dóor Fadam téye na Fadam Poulicouna jàppante nañ lu nar a xaw ndeysaan Poulicouna ngi dóor ci suuf Fadam takk ko takk ko daan ko Fadam daan na Poulicouna Fadam daan daan na waay waay Fadam daan na waay daan na ko Fadam daan na Petit Gana waay xoolal si Fadam yi waay ndeysaan rawaay jëwal Eumeu Sène jëwal waay Kirba ña ngay fecc dana ko rey ndeysaan lamb ja jeex na waay Fadam daan na waay Eh, grand combat bi Fadam daan na ay waay Fadam Junior daan na ay waay Fadam daan wax rek. du da ngeen waxoon dañuy faar. waaw am na ñu ko wax de ci yéen. waaw ah. waaw. ñu ne da ngay dem faar xanaa xamuñu la. xamuñu ma de moom mii ma jël sax xamuma ah. heure bi waruma woon a bëre ñii. déedéet billaay wala lam moo tëradi rek ak gëj a dafa def ay trois ans noo bëre xam nga da ngay perdre repère sax looloo tax looloo tax ma bëre li ma bëree ni da nga perdre repère nii. li ma kontaanu ma si. lu tax coup bi ma jël waru ma koo jël. lan moo tax nga jël coup bi. mais fa nekk nga jël coup bi pour mën ko jàpp. waa pour ma mën ko jàpp man xam naa moom ma ko jàppee mu jeex moom. waaw sa ñaata combat. bii mooy sama neuvième combat. nga jëm fan. ma jëm ci kaw rek. ci ñan ñuy tax rajo yi rek. ñoom Tapha Mbeur. Tapha Mbeur ay Ada Fass waaw ñooñu man ñooñu laa war a bëreel. ay Tapha Mbeur instant dimanche Ada Fass Jokal ku daan foofu soxla naa la. ku daan ak ku daanu. ak ku daanu waaw bëgg naa waaw ku daan ak ku daanu. mais surtout Tapha Mbeur. Tapha Mbeur bi tax rajo yi mu bëree soox na ñëw bëree man moo gën. gën a mor fa dem ñu fiy génn dañoo am défaite. mais bii yoon ñëw nga indi fa ndam sa moroomu nawle bëriwaat moom it am ndam. daa mel ni mu ngi waaj neexaat ci day neexaat. parce que gars dañuy liggéey te caaxaanuñu tey ñoom évalué mbër faram tey ñoom ñoom mbër yi seen mbër moo doon bëre tey muy faram junior waaw gisoo boo gisee ñoom ñëpp ñëw nañ ñoom ñëpp a ñëw parce que seen bër laa man waaw lan moo la def loolu lan moo tax nekk seen mbër ah loo leen jiiñ loo leen wan <laughs> xanaa yéen a leen jaamu ñoom ñëpp ku ci am bis ma son si yow loolu waaw wax dëgg fa yàlla wax dëgg fa yàlla jërëjëfati